boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàttee bés fi ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo madame la gouverneur comme madame la gouverneur ñu ngi lay nuyu lu bari te di la dalal jàmm di nuyu le préfet ak sous-préfet ak mbooleem chef de service yi fi nekk yëpp ñu ñëw fii ci turu Serigne Moustapha mu Cheikh Sidi bi nga xam ni mooy jëwriñu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ngir waajal màggalu Mbacké Kajoor tamuy bis bi ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ibnu Xaadimu Rasul ganee àddina mu nekkoon bis bu rëy ci Cheikhul Xadim wax naa ko ci ak njàlbeen ñi jëkk a jaayanteeg sëriñ bi ci Mbàkke Kajoor ginnaaw ci ndigalu Seydina Mohamed Ali salaatu wasalaam ci atum 1883 sëriñ bi jógee fa ñibbi si Mbàkke Bawal ba sanc Daaru Salaam ba sanc Touba Cheikh Moustapha mi ngi gane àddina ci Daaru Salaam moom Cheikh Mamadou Fadel bi mu sancee Mbàkke Touba ci atum ba ci 1891 Cheikh Mouhamadou la Bara feeñ ci jamono ñooñu jaayante woon ak moom ci Mbàkke Kajoor yëpp da leen woo ba ñu ñëw mu ni leen li ngeen doon sàkku ci seen boroom yëpp gan gi ñëw andil na leen ko bis boobu di bisu mbégte di bisu faj aajo di bisu àgg ci suñu boroom moo waraloon bu jëkkoon dañu daan màggal bis bi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara génnee àddina muy benn fan ci tabaski waaye Cheikh Saliou Mbacké bi mu ñëwee nekk xalif général des mourides moo woo Cheikh Sidi Makhtar ni ko dama bëgg ñëpp jariñu ndax bis boobu day bisum ndimbal di bis faj aajo dama bëgg ñu bàyyi bis ba ne kon andi ko ci bis bi moo waral ñuy fàttali ko bis bi nga xam ni ci la ganee àddina muy bis bu rëy bokk na ci màggal yi gën a rëy ginnaaw màggalu Touba ñetti màggal yi gën a rëy ginnaaw màggalu Touba màggalu Mbacké Kajoor gi bokk na ci moo tax Cheikh Moustapha di ko def ci ndigalul sëñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ni moo moom lépp ndax lépp lu waay di def ci yoon wi moom nga koy defal moo koy jiite mooy kilifa gi waaye ci teewaayu kilifa kër gi di Baye Ahmadou Makhtar mi nga xam ne mooy xalifab Cheikh Moustapha waaye mooy xalifab Cheikh Mouhamadul Baari ak njabootu gépp mu fonk ko lool tax mu boole ma ñun comité d'organisation yi nga gis sa wet madame la gouverneur nga xam ne ñu ngi ci ràññee kii sës ci sama wet di sëriñ Bara Abdoul Karim di xalifa sëriñ Abdoul Karim mu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ak sëriñ Bara Abdoul Ahad moom itam nga xam ni commission bi yor wàllu set setal gi moo ko yore ak sëriñ Sidi Mbacké Abdoul Aziz nga xam ni depuis ñoo bokk ànd liggéey bi mooy premier archiviste au maire bu Touba. ak sëriñ Xaadim Mbàkke di xalifa suñu Mustayin Baara moom itam muy kenn ci njaboot gi ak sëriñ Modou Mbàkke mi nga xam ni sëriñ Cheikh Kajoor moo ko yabal mu ànd ak sëñ Abibu Mbàkke doomam nga xam sëñ Cheikh Kajoor mooy imaamu Mbàkke Kajoor sëriñ soxna Ami Mbàkke doomu sëñ Modou Aysa mooy mi ngi fi sëriñ Abdul Ahad Abdul Aziz nga xam ni mooy chef de village Mbàkke Kajoor ñu ànd ak suñu maire de la commune sëñ Mamour Sylla mu ànd ak conseil yëpp ñoom si Ibrahima Ndiaye ak secretaire général bi mu di monsieur Samb ñëw nañu ànd itam ak sëñ Alaaji Ma Sylla Ndiaye sëñ Maam Thierno Dieng nga xam ni moo fi représenté président conseil départemental bi ñu ñëw nag fekk fi Alaaji Ma Dieye Fall mi nga xam ni fédération Cheikh Mouhamadou Lamine Bara yëpp moo ko yore nga xam ni saa suñ jógee fii këram la ñuy jaar yenn fa bokk fa toog waxtaan soog a ñibbi mu ànd ak fédération bi yëpp ñëw teew fi ak sëñ Abdou Aziz Diop moom mi nga xam ni moo wutu sëñ Dame Diop mi yoroon kàddu sëriñ bi ci Touba Ndiobène Kounta sëriñ Saliou Tine nga xam ni monsieur Tine mooy secrétaire général bu comité d'organisation bi mooy secrétaire général bu comité d'organisation bi moom itam mi ngi suñu wet ak euh, Moussa Mbeng ji Jaaja moom xëy na yaa ngi wax waaye kon da am ñaari bor yoo xam ni yaakaar naa bii moo gën a dëgër gën a saf mooy dafa ànd na suñu waajur ba ñu nekk ay xale nii da daan ànd ak ñoom ci màggal bi ñu nekk ay xale yu ndaw di ko gis ci ñu kan kanam waajur ba ba ñooñu génn àddina mu ànd ñun ci liggéey boobu ba léegi moom itam ñu koy sargal di ñaan suñu borom yàggal ko fi sëriñ Cheikh Fall Guèye moom itam mu ñëw teewal bi sëñ Adama Guèye maamoom moo njëkk a ci sëriñ bi ak ñi nga xam ni ànd nañoo ñoom ñëpp ku ma ñu tudd ak ku ma tuddul nga xam ni yaa ngi ci suñu xel euh, ak presse bi nga xam ne dañoo ànd ak ñi ñu fekk ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di bu baax madame la gouverneur may jiital ay sant ak i ngërëm ci gouverneur sortant bi fi jógee muy Alaaji Buya Amar ndax da daan ànd ak ñun ci liggéey bi àndin wu rafet woo xam ni Pastef la ci daan ànd ak ñun ba yàlla dogal mu bàyyi ko fi dem dem Kaffrine kon ñu ngi koy sargal te di la ñaanal yow itam ndam lu fi ab ma sa am nga am ndam lu ko gën a kawe bi barakat rasulullah alayhi salaatu wasalaam ñu sant préfet gërëm ko ak su préfet ak chef service yëpp am na ci ñoo xam suñuy xarit lañu ndax dañoo yàgg daje ak ñoom Cheikh Amadou Bamba ñu ngi lay sant di la gërëm ci taxawaay bi ak pasteur bi nga jël ñuy sant bu baax ci taxawaay bi madame le gouverneur parce que Serigne Moustapha mi nga xam ne moo woote bis bi muy yow muy préfet su préfet ak chef de service yëpp xam nañu ni kenn bu nekk li nga feeñal ci yéene dafa mel ni sëriñ bi sax yaa ko ëpp yéene ngir bis bi jàng kon loolu ñu ngi la sant di sant seeni kilifa di ko jaare ci ministre de l'intérieur mu dem ba ci premier ministre ndax saa su bis bi ñëwee dañuy dañ ciy ànd ak ñun liñ bëgg yëpp ñu ciy jàppale di sant président Macky Sall mi nga xam ne lu ci waaye def la ko defee. ci moom moo la ko dooleel nga man koo def te diiraa mu nekk président mil 2012 dafa ànd nag ñun ci liggéey bi ci wetu sëriñ bi daan jàppale Cheikh Sidi Makhtar bi mu nekkee xalif général des ci liggéey bu sëriñ Touba bi doon ko jàppale ci dëkku Touba bi di ñu jàppale ci màggalu Mbàkke Kajoor ak bisub ak jëmmi dëkku Mbàkke Kajoor ñun man mi nga xam ne maa doxoon ci diggante mi daan bindanteeg moom daan waxanteeg moom téléphone di wax xam naa li mu jàppale sëriñ bi ak li muy defal kon ñi koy sant ci loolu di ko ñaan yàlla suñu borom defal ko ëllëgam gën a neex ci tey bi barakatu rasulullah alayhi wasallam yàlla dafa ko sutura ñu sant bu baax gërëm leen ci nga xam ci taxawaay bi nga xam ni taxaw nañ ji léegi euh, wax ji daanaka amul lu ma ci mën a yokk lu dul euh, wax ni monsieur euh, le commandant de la brigade li nga wax dégg nañ ko bu baax yàlla dogal na sëriñ ji yàlla def leen a nattu nattu sëriñ mooy ku génn àddina dëgmal sa borom te bëgg caa yóbbale am mbooloo mbooloo moomu kenn mun leen a ci seen borom te yaroo leen sëriñ si ay éducateur la ay yarkat lañu yarkat nag jàpp naa ni du ma sa ànd ci koo xam ni day def naka sudul noonu ñun duñ daan wax fi saa suñ ñëwee ba wax suñuy doléance bu pare dañuy wax ak taalibe yi ñiy ñëw Mbàkke Kajoor ak ñi dem feneen dañ na nañ respecté ñi nga xam ne ñooy takk der yi taxaw ci yoon wi ndax fu ci fekk am takk der taxaw na xam ne yow man yow may jaar yaa tax mu taxaw fa di wax ni si sars yeeg xeet yu mel noonu ak ñi nga xam ne ay deux roues yu daw lañ daawuñu nag dañ daan wax naan nañ mas buñ maslaa ci loolu buñ leen bàyyi ñu ñëw Mbàkke ñëw kon jàpp naa ni sëriñ si moom seen rôle mooy guider nit ñi ak teg leen ci yoon boo xam kenn du jalgati liñ bëgg suñu amoon gendarmerie du am police du am kasa du am ginnaaw lu yàlla amul ak yonte bi amu ko suñ suñ Tuubaa amu ko ñun mënuñu ko am waaye lii suñu lool ñu ngi ci taxaw guddi ak bëccëg mooy wax nit ñi li ñu war a def ñu sàmmoon teg li nga xam ni moo di yoon kon na nga dalal sa xel bu baax xam ni li ñu war a wax yëpp incha allah ci diggante ñii ñëw ak ñii dem danañ ko wax li ñuy wax rek mooy koo xam ni dangaa am accès li ñuy wax accès de vitesse wala nga def surcharge wala nga yab loo xam ne waroo koo yab kooku ñun waxuñu ci moom kooku lu ci yoon wax nañ ko teg te bañ ca masla ndax dëgg loolu lañ mas di wax dëgg kenn lu ci masla waaye li ñuy wax mooy dañuy gis euh, bis bi nga xam ne ci la ñuy bale si Touba te ci la ñuy bale si Mbàkke Kajoor ay camion yooyu ñooy ñëw di ay nit te dañ leen di wax ni bu kenn yëg ci kaw na ñëpp dugg ci suuf na ñëpp dugg ci biir ngir bañ a gaañu ñooñu la ñuy wax ñu yombale la seenu ñëw pour ñu mën a indi nit ñi nga xam dañuy bale ndax daaw dañu fi toog ba deux heures am oto yoo xam ne accès bu ñu te gendarme ñoo leen jiite ñoo leen téye am na ñoo xam ne ñi ngi leen téye Touba ñu wax ne waa Touba beneen lañ am na ñoo xam ne daanaka su ñoo leen téye suñuy ñaan ay ndimbal foofu lañ koy jëme waaye di ci koo xam ni da ngaa def loo xam ni waroo koo def service d'hygiène euh, capitaine ñu dala sa xel daaw liggéey nañ liggéey bu rafet boo xam ni seen côté dara mun ci gi ni ñu defoon daaw am na benn lettre boo xam ne dañ ko bindal préfet mu andi ko ci ñun ñoo ànd ci liggéey bi yaakaar naa ku fa ñëw dees na la dalal dese na jox nga ndékki dese la jox nga añ dese la jox nga ren te incha allah su ngeen fi indiwoon cent personnes dinañ leen jëpp en charge bu soobee yàlla ci am benn benn benn benn jaaxle ci wàllu euh, docteur euh, wàllu médicament yi ñi ngi sant bu baax euh, li ma ciy wax monsieur madame le gouverneur Mbacké Kadior président moo mayoon sëriñ bi def ko ab centre de santé lu ñu ko mun a tuddee secondaire rek nangam nangam yëpp centre de santé la moo xam ne président moo ko mayoon sëriñ bi moo aju ci région médicale wala direction bu bu région de Louga donc li ñuy wax mooy fan yële dañ daan am jafe-jafe ci wàllu médicament suñu waree jënd médicament dañ leen naan dañuy ñëw fii ci pharmacie leen lu dem ci di jëndee loolu moom c'est pas logique du loo xam ne xel mën na ko nangu keneen pré sous-préfet jot naa ko jot naa jot naa sous waxtaan nañ ci ak moom ci sëñ Moussa sax moom moo intervenu ma ci loolu moo ko préfet mu waxtaan ci ba nga xam ne wax nañ mu ñëw di jënd si fi médicament dañoo bëgg centre de santé yëpp ñu ñëw jënd fii ci Louga di jënd ay médicaments ñu yombalal centre de santé bi nekk Mbacke Kadior mu ñëw fii di jënd ay médicaments ni ko centre de santé yëpp ay def loolu daal bëgg nañ ko madame la gouverneur ñu yombal ko ndax jafe-jafe la ci ci ñun. ñaareel ba ci biir set setal bi am na benn fondation bu ñu wax Bouchara dafa bëgg a dafa bëgg a benn consultation gratuite médicale. ci bis boobu ñu lañ ci woo soo leen mënee ñëw jàppale tuuti ci ay médicaments it du wàññi dara nga defal leen loolu lañu amoon ci loo xam ni ñu ngi koy wax ci lu jëm ci eh, ci ci yooyu waaye suñu tënkee madame le gouverneur gis naa ni gis naa fi ay chef de service yoo xam ni mësuma leen a gis fii ci CRD bi te loolu sa taxawaay la ak sa xërt ak sa pasteur kon nag yéen chef de service yi dama bëgg ñun ñëpp ñu ànd jàppale madame le gouverneur ba màggal gi benn benn fay bañ cee am dara bañ cee ñu am ko à 200 pour cent waxuma 100 pour cent mais am ko à dëgg yàlla dama gisee ni suñu xel dal na ci yéen xam nañ ni li ngeen engagé yéen ngeen ko dem surtout AG route ñu sant bu baax di waxtaan ak yow xam na at yi weesu yëpp dañu doon noppal rek ndax lu bari di ngeen ko defal ba noppi ci biir dëkk bi waaye amaat nañ fa ay soxla yoo xam ni tey si am na benn mu jëm kër boo xam dafa bëri trop suuf da yaakaar naa ni ci document bi loolu bëgg nañ nga nga nga nga ngeen jàpp ci ni ko madame le gouverneur waxee nga xam ne balaa màggal gi ñëw da ngay ñëw def si sa liggéey ak voie de contournement bi dem su ngeen ko mënta dem ñu commencé ko fàkk ba nga xam ne oto yi dinañ mën a eh, dem ci jàmm ak salaam kon daal màggal gi mi ngi noonu incha allahu eh, madame le gouverneur bi su faj ajo la eh, màggal la koo xam ne ku ci ñëw soxla boo am ci àddina boo ko ci fase suñ borom na ko saafaral na mu faje woon aajo ñu ànd na sëñ Tuubaa bi nga xamante ni sëriñ bi feeñ na feeñ na ci jamono kon loolu mooy bis bi eh, di ci sant presse bi ci ànd gi ngeen ànd ak ñun mu ñu jógee Touba mu ñu jóge Dakar mu ñu nekk Louga yéen ñëpp gis nañu ànd gi ngeen ànd ñun ci liggéey bi ndax liggéey bi lu mu rafet rafet te tasaarowul kenn mënu koo gis kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm di sant. di gërëm ñëpp di ko tàmbalee si xalif bi sëñ Cheikh. ñu ngi lay yóbbante suñu ngërëm suñu sant ci xalifu Mbàkke Kajoor comme niñ ko waxee woon ci suba ndax euh, préfet ak sous-préfet nañu jàppale bi ñuy jàppale administration ni mu ñu yombalee suñu liggéey kon nag ñu koy gërëm di ko sant di ko ziyaara di ko delloo euh, wàcce waay di ko jox wàcco waay di ko delloo suñu féddale suñu kóllëre donc di leen gërëm di sant comité d'organisation bi Euh, coordonnateur am euh, Serigne Cheikh Thioro ñu ngi lay gërëm di la sant ci sa taxawaay ci ni nga leen ni nga yombalee administration bi liggéeyam boobu ba léegi commencé ci CDD bi ak yeneen édition yi préfet wax na ko sànq jàppale ngeen leen bu baax a baax ba nga xam ne su gàmmu Mbàkke Kajoor ñëwee wax dëgg yàlla xel yi day dal administration muy euh, Euh, administration territoriale di service technique yi wax dëgg yàlla euh, ñoom ñëpp euh, gërëm nañ leen sant nañ leen ci ni nga leen di yombalalee seen liggéey waxtaan bi nag question yu bëri wax nañ ko fi lu jëm ci sécurité wax nañ ko lu jëm ci wàllum hydraulique assainissement wax nañ ko wax nañu lu jëm ci environnement wax waxu lu jëm ci santé Euh, service euh, yi nga xam ne mooy concessionnaire yi aussi ni ñuy jàppale ci organisation bi muy Senelec ak euh, Sonatel yooyu yëpp ci tënk Sonaged également ñoom ñëpp wax nañu wax dëgg yàlla ci bés bi ban taxawaay lañ ciy mën a am ku ci ne nag jël nga sa engagement ne na nga xam ne noonu lañ ko daan defee danañu ko def lu ko raw danañ ko ci def ngir bés bi mën a euh, jàll ci anam yu rafet a rafet kon nag ñun tamit suñu wàll dinañ ko def muy bind circulaire circulaire boo xam ne dañ koy adressé service yi fi nekk yépp pour rappeler leen lan lañ fi waxoon ba nga xam ne ñoom it dinañu mën a respecter seen engagement euh, ca bés ba dinañu aussi jox instruction préfet sous préfet comme nañ ko daan defee année yi passé ñu assurer le suivi xëy na tey def nañu CRD bi mais aussi war nañu di waxtaanee euh, continuer communication bi ba nga xam ne bés ba bu ñëwee eh, yenn jafe-jafe yu bëri dinañu ko maytu am na ci yoo xam ne nag euh, tënk nañ ko fi yoo xam ne dépassé na suñuy compétence li jëm déjà ci AGEROUTE voie de contournement bi loolu wax nañ ko ñoom dinañ ci dellu ci waat ci seeni programme mais Euh, route ba jëm yoon ba jëm Pekes foofu dafa ne dafa génn ci région de Louga euh, région de Thiès la nekk mais dinañu saisir suñuy naataango yi nga xam ne ñoo nekk région de Thiès ñu xool nan lañ siy jàppee bu baax a baax a baax wax nañu ci wàllum euh, CSA loolu aussi ñun fii dinañ am liggéey bu am solo buñ ciy def waaye kilifa yi nga xam ne ñoo ñu yilif fële ca kaw dinañ leen ko yeggee ba nga xam ne ñoom it la ca am war a war a am danañ ko def ñu wax euh, brigade de gendarmerie bi également loolu aussi dinañu ci waxtaan bind suñuy kilifa ya ca kaw ñoom it ñu xool naka lañ ci jàppee ba nga xam ne la ngeen ca bëgg dana am insha allah di wax nañu aussi wàllum centre polyvalent bi nga xam ne Euh, travaux yi dafa arrêté yooyu tam dinañ ko saytu liñ si mën a def dinañ ko ci def li nga xam ne nag jël jéggi na suñuy compétence dinañu ko euh, euh, dinañ ko yóbbee ñi nga xam ne ñoo ko war a saytu kon nag ci tënk maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan yàlla ñu yegg ci bés ba mu am organisation bu mucc ay ndax tey bii mooy suñu première organisation en tant que gouverneur de la région CRD bi nga xam ne moom lañ consacré euh, préparation euh, màggalu Mbàkke Kajoor kon nag dinañ ci def suñu kéemtalaay kàttan ba nga xam ne dinañ ci dugg si euh, bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamina donc di gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaam boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën am mboolem vidéo yi fi bàyyikoo